sëriñ Sidi dafa relever def yu bari bi moo ñëw si yoon wi fekk na sëñ Alaaji ñëw gàtt yi fi gàtt lool sëñ Alaaji Baara mu gàtt lool xel yi doon ñaar ñépp di wax baadoolu tubaab ba waxoon moo noo waaj dal tubaab bi dafa ne woon muñ leen sëñ tubaab léegi mu jóge fi su fi jógee yoon wi dana tas nekk nangami bopp te dootul am doole sëñ Modou Moustapha ñëw def samp yoon wi àggale ka fi mu àggale ba yoon wi ëpp doole doole goo xam ni kenn mësu ko gis sëñ Cheikh Sidi Maxtaar loolu la def dafa yëkkati yoon wi ba képp koo xam ni dangay wax ashhadu an laa ilaaha illallaah da ngay bëgg doon murit sëñ Basiru Taal su ma déggee moo ma wax ni ma kenn laa def kilifa ci senegal gi moo sëriñ Cheikh Sidi Maxtaar sëñ Basiru Taal moo ma ko wax billaahi wallaahi taalaahi kooku cëru doomu sëñ Tuubaa la am cëru doomu sëñ Tuubaa am sëñ Abdou bi mu ko doon woon sëñ Abdou Aziz bi mu doon dem di nuy ji sëñ Saaliwu ànd ak njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mamadou Lamine Baara di di di leen jébbal sëñ Saaliwu bés boobu la ko joxoñ ne ko kii moo topp si man loolu la sëñ Abdou Aziz ba mu ko joxeñee sa guddi ga la fartu alxames ga mu wàcc liggéey àllarba la def booba samp na ko yëf yi dafa doon jaar si loxo waa waajuram Cheikh Mohamad Lamine Baara mu xalal ko yoon waaye ba mu ñëwee juróom-ñaari atam yi ñëpp xam lu la naqadi si yoonu murit faju na ñëpp xam ni yoon wi dëgg-dëgg am na doole am na doole weesuwul nga sumb jumaa ju toll nii àggale ko fii lépp moom la lépp moom la amunu fayam kon warna na sëñ Basiru def nga yag nga def lu rafet yag nga wane jambaru seigne touba yi waye nak ki nga wane mo jar wane deug deug maa ngi leen di ni kep ko xamni xeyntuna ay jukko Serigne Cheikh Sidi makhtar da am ngeureumal seigne touba te do jaxle sa adina dafa làmboo jukko yu rafet yo xamni kep ko xeyntu ñame liggey lol joxe boppam ba mu jeex tàkk le sëriñ bi doon wax ne jox na boppam yonent ba mu jeex tàkk te laaju si njukkal moom dafa jox léppam sëñ Touba te laaju si benn njukkal bëggul lenn du nu gërëmal sëñ Touba yàlla nañ ko sëñ Touba fayal ki toog nag mat na ko sëkk mat na ko sëkk masul tëgg dënn ni maay doomu seen Cheikh si Maxtaar mësul bëgg dara foo ko fekkee sëñ bi rekk mu ngi góor nekk si suufam bëggul lu dul lu ko neex man de woo naa ko benn guddi ni ko dama la seetlu dama bëgg sëñ Cheikh Sidi maxtar seetlu la ba gis ni nga mel si moom ma jël la bëgg la nga doon sama xarit ndax kat am baay bu mel nii tiitarewu loo ko bëgguloo lu dul mu doon sa sëriñ bëgguloo mu dul mu doon sa kalifa tooguloo tëgg dënn xëccuwuloo lenn lu dul fas yéene doon taalibe Cheikh sëñ Cheikh Sidi Maxtaar ma ne ko ku baax nga waaye nag tey lépp ak na si loxoom te nag na sunu xel dal de na mu neexe woon si sëriñ bi dana neexe lu ko ndax dafa am ngërëbal sëriñ bi jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Touba.